asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Paris sama gars yi xew-xew bu mag lii nag moom mbégte la bànneex la lan la salaam Diallo dafa ñëw 31 décembre toj ko gars yi ne déetuwaay le 17 janvier Salam Diallo toj Star Night daw dem Sénégal génne album bu bees dàq daal na samay soppe samay xarit samay andi jàmm samay fans yéen laa yéen waa Paris yéen laa koy njëkk a jox di def nag soirée dédicace kañ dimanche le 22 février fan fa nga ko biisee woon rek fa Dakar gi safee woon Star foofu la koy defaatee salaam nuyu naa la. fay naa la. salaam ci loo nekk fi ma la fekk daf maa neex. waaw ndax fii kër Pape Samba di kër Serigne Sall. ñu koy wax Sénégal beauté. Sénégal beauté nekk fii Château d'eau. looloo tax mu nekk Sénégal rafet Sénégal rafet. xam ne nag seede bi nga ni génn na. mu ngi nii waaye ku ko bëgg tamit da ñëw fii ci Sénégal beauté ci Papa Samba. nekk Château d'eau. taalibe Serigne Cheikh Sall. cong waaw comme ni nga waxee rek. Mhm. dóor dóoraat dóoraat. waaw waaw ndax waa France ñoo ma ko ji. Mhm. fu ma jaar de loolu lañ jukkal. nag mooy opus bi ñëw na CD bu bees bi képp nag koo xam ne bëgg na fecc fecc yi ci nekk déglu way yi daal di enjoy na nga ñëw sa dimanche Scar Night dina tàng te dina métti te lii maa leen ko wax profitoo leen. mais salaam waaw dama laa dégg nga joobe ci ay doomu aadama yoo xamante ni macha allah. ku ci mel ni Awa Yaafa. waaw sama doom sama xarit. danga nga teew ci biir. Awa Diallo Awa Diallo sama doom sama xarit. Soxna Mbodj Soxna Mbodj. Mbaye ak Babilone Mbaye ak Babilone. Satu Biaye Satu Dior Lamine Diop ak Jabara Lamine Diop Aïda Aïda mais dama ni sama gars yi ba ci salon yi bàyyiwuñu kenn salon Tàkko salon May salon Xadi Sam salon ñoom umm bàyyiwuñu kenn restaurant yi ñu ngi woo ñëpp La Linguère restaurant Kër Bour Guéwél restaurant Nabou restaurant Équateur restaurant Proxam xelkom salam bayiwul kenn kenn mais salam la moy secret ak wa digënté ba pare doyna wa heure bo jam ak salam te jam ak salam la sédé bi tuddu mais dafa am lo xamni dina ko wax kérok ba muy teug néna dama yexa commencer am nañu ñibbi wa mais bi nak tan wax dama koy def bi ni ni 2h30 pile ma ngi ci kaw sen 2h30 mimi kan deg nga xadima la deg nga ak ñeneen ak ñeneen kon sama gaay dimanche le 22 Star Night 52 rue des Petits Écuries sama gars yi teel leen def seen réservation ndax dimanche passé dafa am ñoo xam ne ñoo ñëw ci bi duggu ñu salam waaw est-ce que kon kon bii paa mën nañ teel def réservation. 2h30 ñoo ngi ci kaw sen bi. kon bok rendez-vous bi 11h la ak feccu bi xana xam nga daa xamati. <laughs>